daa aw wala boog ashaddu aswa gën a wow dañ ashaddu gën a gën a gën a tar aswatan ci ci wow wa inna min al xijaara ndax te am na ci daj yi lamaa daj woo xam ne yatafajjaru day ball minhu ca daj wa al anhaaru ay dex am na ci dex yi am na ci doj yi doj yu tane xooli banu Israayil ndax xoolu banu Israayil yërma du ci toq mukk te am na yéen ñi woo xam ne ndox la cay balle kon doj waa tane wa inna minha am na ca lama yasaqaqu daj wuy xar fa yaxruju muy génn minhu ca daj wa almaawu ndox am na ci doj yi doj yoo xam day xar ndox bi ci génne maanaam nit ñi di ca mën di jàpp ak naan wa inna minha am na ci doj yi lama yahbitu doj wuy daanu daanu min xasatillahi ngir ragal yàlla kon ñetti doj yi bu ci nekk yaatane yahut doj wuy ballal jax doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yàlla ñetti yëpp banu Israel di ci def benn xam ngeen ne daj wa yàlla waxoon ne Moussa damaa am rendez-vous ci yow yàlla wax ko doj wi doj wi daa moo koru mbokk waaw kon Moussa ne yàlla dama laa doog a gis yàlla ne ko dooma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fii ka dee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon dooma gis Moussa nag daan na yàlla doxaloo démocratie te jamono yëpp nga waxoon man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Moussa kalimullahi xejjub yàlla moom lu ne sañ na ko wax yàlla yàlla na ko am léegi noonu la naa wax doj wii am naa fi rendiwu mag Moussa su melee ni meloon mu ñëw ñu gisee ba yàlla naree bëgg a wax yëpp doj ba mel ni pënd Moussa xam Moussa xam moom xam ni kaw daan na yàlla innaka ala kulli shay'in qadir léegi audience bi merci yàlla ne ko nag am naa démocratie mu ne ko pire pire moom kay nañ ko yemale foofu te te te te ñu ngi ci kanam insha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin ci kuy sàggane amma taamaloon li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàgganul ci lenn ak lu war a tuuti tuuti ak lu nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi xaafilin amma taamalu amul lenn lu yàlla sàggane ci jëfi doomu aadama yi léeg-léeg na yow gis benn waay muy def benn mbir nga mer ca lool yàlla na la jëru ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye sàcc buy nelaw yarte yaa sa nelaw bu mën laa bi xaasul na amma taamalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmen ay yuminu lakum nit ñi gëm leen afatatmauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yuminu lakum nit ñi gëm leen waqad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallaahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuharrifuunahu ñu koy far yuharrifuunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wa hum yaalamuuna te xam nañ ñoo ko tey maanaam yahud yi ak nasaraan ñoom yëpp dégg nañ xibaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye di ko weddi bëgg nit ñi gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk wa isa laqoo bu ñu dajee allatina amanu ñu gëm xaaloo ñu ne aman naa gëm nañ wa isa xalaa bu wéetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo fa nekk ñu daal di waxtaan xaalu ñu ne yéen yahudi da ngeen ñuy fonto atuhaddisuunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fataxa allahu ci li leen yàlla xamal aleykum ci yéen li yuxaajukum bihi ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom afala taaxiluuna xanaa jëfandikoo leen seen xel maanaam ay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam biñ am buñ ko xamal jullit yi ndax xam ngeen ne yahood ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alxuraan ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xissa mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leera yahood ne lañu yéen da ngeen a dof bu leen jullit di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu del leen wax xam-xam bu leerut ah looloo jur xissa boo dem ci alquran yahood yi yàq ko xissab daawuda lañ ci gën a yàq ne la daawuda daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar bi dégg ngeen xista boobu israiliya di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zeynab bu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zeyd laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xista yi yi ci alquran yi yëpp tabarkal bi mu tàmbalee génn ci léeri tafsir yi yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca répp te wax waaw fekk na waxtaan woo xam ne borom xam-xam loolu la wax kon banu Israel daal liñ bëgg mooy kuy xamal nit dañ koy xamal dara bàyyi dara waaw ni ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala sinwaay bi ñuy defar suñu stade bii bu guddee ñuy tabax bu bësitee ñuy toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñooñu it léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paane ñëwaat amaat ciw deux cent tubaab bi noonu rek lay def oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce yi léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek moom fa nga koy bàyyi amul fa lii loolu moo nekk naka jekk jikko yëwoon lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni chinois yi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappi comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii nit ñu ne développé na anglais yi sax sa ne wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa qala baadum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fataha allahu alaykum li yuhajjukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taqilun yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne anna allaha yàlla yaal moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yulinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal bu ko defee kon agsi nañu ci waxtu bi ñu leen waxoon bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yàlla subhanahu wa taala mu baax mi baaxee si nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weer wu mag bi daje ci téeréen bi mu yett yu mbir yu am solo ñu ngi woon démb ci suratu albaqara taxaw woon ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci wa isaa laqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون نبرا سبحانه وتعالى بوهمي يهودي لاندف mooy suñu wéetee ñi wax ne bu ngeen di waxtaan ci ak julit yi bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy weranteeg yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neex xel da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te dem ci bu leer bi ñu bon la ñu leen yëgoon yàlla nag di leen tontu daan ne leen awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalamu moom xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa xam ne it la nga xam ne yuxlin noonu ña ngi koy feeñal yàlla la ñuy nëbbu ñoom yahud yi di ko nëbbu jullit yi loolu yàlla xam na ko la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na ko wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jànguñ bari na ci yëgoon yi lool ñoo xam ne jànguñ mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaalamuuna xamuñu alkitaabu mbind xamuñu dara illa lu dul amaaniya ndénkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wa in hum te ñoom déet ñoom illa yazunnuun lu dul ñuy jort njort rek la ñuy wéyee moo tax bi jullit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sànkute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna bi nga topp ci ginnaawam bu sànkoo nga sànku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala daalun ñaari tubaab yi dong ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee damaa moom day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw moo tax li ëpp ci ñi topp yahud yi ñoom du ñu am xam-xam mais du ñu pratiquer li tax nasaraan yi ñoom du ñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir mi mboolem ku bëgg a nekk bi yëgoon da ngay man xam waaye doo pratiquer te théorie rek soo ngeen ko defee moo tax discours day fees del waaye daal du ci biir ñi topp tubaab ni ñoom du ñu am benn xam-xam sax tabarakallah fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaaba dañuy bind téere bi aydihim ci seen loxo bind téere ci sa loxo taalif suma ginnaaw ba bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa loxo daal ne haga téere bi min indillahi ci yàlla la jóge moo dal moo dal injil moo dal injil Macca daa bind téeréem Luk bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haga min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwooy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwooy sama doom ndax kon mu am contradiction ak alquran te tiire yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sama morom benn yonenti mu tax benn yonenti ñëw na ko du dëgg léegi la xew ci borom xam-xam yi borom xam-xam waxee morom ñu ne ko du dëgg waaye yonent yi ñoom li taxoon ñu teel a réussir lañ jógoon mooy lu mu yonent wax bu morom ñi ñëwee ca lay soofe ne ko wax nga dëgg de daal di continuer moo tax ñun ak say ci alayhi salaatu salaam rek laqad xalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim nit daal di mat léegi nag moom borom xam-xam bu wax bu morom ñi ñëwee ne ko waxoo dëgg tegoo ko fii nangam nangam tool na ko moo tax ni yow nasaraan yi summa yaquluuna haada min indillah waaw luñ ci jublu liyastaru bihi ngir ñu weccee ko samanan qalila njëggu néew dañ ko bëgg a weccoog njëggu néew mooy téere boobu lañ bëgg a jaay waaye nag yàlla mu ne njëggu néew lañ koy jaayee nan lañ koy jaayee ndax dañ leen di jox xaalis ñu jox téere joxe téere bi déedéet topp ji nit ñi topp téere bi bàyyi fi alquran nekk seeni taalibe lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahum yàlla mu ne su boobul ma leen mimma katabat aydihim carat li seen loxo bind wa waylun lahum su boobul ma leen mimma yaksibuna ca lañ cee amee la ñuy bind dana leen alal waaye xaaj bañ cee amee it wala daraja wala leen loola it dana leen alal kon nuñ mën def alal alal waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun yàlla boo ko fasalee duural ko loo mën a am ca duural ya loo mën a am ca sof ya da nga xam ne tof kara ñeel na la nga xam ne tof kara ñeel na la leetar bi samanan xalilan samanan xalilan moo di la ñuy amee ca téere ba lum foor foor loolu la yàlla tuddee samanan xalilan ay état rek ay million ay milliards loo mën a am te amoo ngërëmal yàlla téere boobee nga ko amee samanan xalilan njëg bu tuuti la waxaaloo yahudi nee nañ lan tamassana duñu laal annaaru sawara illa ayaaman lu dul ay fan mahduda yu ñu compté yahudi nee nañ mën nañ sax dugg sawara yaakaar nañ ne waaye une semaine la ñuy am sawara loolu la yahudi wax dinañ dugg sawara moom gaa xëy na waaye une semaine lañ fi am bu ñu duggee samedi daal bu vendredi ñu génn parce que juróom-ñaari fan yooyu la seen maam ya jaamu woon sëllu wa loolu lañ jàpp moo tax ñu def bu boobaa ñoom daañu génn illa ayaman mahduda juróom-ñaari fan ñu daal di génn sawara waaye xoolal juróom-ñaari fan yoo xam ne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juróom fukki junni at ci ñoom ngeen ko calculer xam ni li muy toll juróom fukki junni at cinquante mille ans fois sept loolu la ñuy am ci biir sawara ñoom loolu la ñu wax waaye sawara yonent yàlla bi nee na ku ca yàlla xooj ni ñuy xooji mburu ci kaas buñ la génnee loo noos noos da nga wax musuma noos waaw ni ñuy xooji mburu ci kaas ndaw ku ndaw du ndékki xooj mburu mi ñor di rek sax xooj bu tuuti boobu nee na bu ñu ko xoojee benn waay biir sawara bu ñu ko seppee day wax ni giñ naa ci yàlla musuma noos bu fekk sawara nekk rek da ngaa noos àdduna ba génn xul nee leen yéen yahudi ab taxatum ndax da ngeen a jàpp da ngeen a am indillahi fa yàlla ahdan kóllëre bu ngeen fiq falan yuxlifa allahu ahada yàlla day du du firi kóllëre bu fekkee ne yàlla moo ne leen une semaine ngeen dem ko kon am ngeen saa falan yuxlifa allahu ahada am wala boog taquluuna ala allahi da ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamut loolu la dañuy wax ci yàlla maa laa yaalamuuna lu ñu xamut waaye nangami gis laay am sawara moom wala du ma dugg sawara wala danaa ko dugg wala aljaan laa jëm loolu moom ci xay bu la nekk kenn xamul foo ci jëm da ngay góorgóorlu rek di am yaakaar da ngay góorgóorlu rek di am yaakaar dañoo suul benn waaye ba noppi saxaaba yi daan ne ah kii de am nañu yaakaar ci moom ab aaya alxuraan la cëpp daan ne falaa tuzakku anfusakum bu leen fi suulee ci kenn naan kii aljanna la jëm balillaahu yuzakki man yashaa yàlla moom mooy taskiye ku ko neex ñun léeg-léeg ñu suul ba noppi rek daal ne ilal jannati ah fekke woon naa fi benn artiste bu deewoon bokkoon super étoile moom ñu ne ma nga aljana waaw ma nga aljana suul nit ba noppi daal ne dugg na aljana te xam naa léegi la xew waaye bu njëkk day xewutoon de ndax ku siin muy yeewu fajar ku siin muy xiifu koor ragal sawar doom ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far nga far teg la seetaan man de moo xam yàlla ne ma fa ngay dugg ah kon ngeen xam yàlla ne balaa dañu dugg sawar de ah kay ba ñu dugg man kasaba képp ko fam sayiatan ay bakkaar wa ahaata bihi mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fa ulaika kooku su deexee nii asxaabu naar ñoo ñooy waa sawara ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg ak une semaine mu ne déedéet hum ñoom xaaliduuna fiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk nekk bu yàgg maa daamat samaawaatu wal ard la yàlla wax li fi rek asamaan ñu nekk asamaan suuf nekk suuf ñu ne fa rek maanaam xoolal ba àdduna sosoo ba léegi ku dugg sawar a am fa diir bu toll noonu foo jëm foo jëm te wenn xal képp bu ñu la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te nga nàmp xal wi trois minutes doo falu da nga kon mii rek sànni ko ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon nii àtte fal ga wacc maa la fax waxuma laa ñu dugal la biir sawara nag moom nga xam ne sawara wii sawara wii saxaar la dong ci moom yàlla jàll musal wala zinati ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wa amilu salihat tey dëkk def lu baax ba dee ca ulaika ñooñu ashabul jannat ñooy waa aljanna hum ñoom it xaaliduna fiha ca la ñuy sax tabarkàlla nekk ca yàgg ca lool abadan ba fawra yàlla nañ ci yàlla boole te ñu cay dugg wa it axasa yàlla ngi wéy ba léegi di xas banu israil di xas tubaab yi di la wax seeni sikk wa it axasa fàttalikul ker ba nga xamee wala boog axas naa fàttalikul ker ba nga xamee ne jàppoon nañu misaaxa banu israil kóllëre banu israil yàlla jàppanteeg ñoom kóllëre gu dëgër jaamu leen ma ñu ne ko daañu la jaam yàlla ne danaa defar seeni mbir ñu ne aju lu mu leen waxoon daf leen ne woon laa taabuduuna da ngeen di bañ a jaamu illa allaha kulub yàlla ñu ne nangu nañ wa bil walidayni ihsana ngeen rafetal ci seen ñaari wayjur ñu ne nangu nañ wa zil qurba ngeen rafetal ci seeni mbokk wal yataama rafetal ci jirim yi wal masaakin rafetal ci miskin yi lii la yàlla santan banu israil jaamu yàlla dong rafetal ci say wajur rafetal ci say mbokk rafetal ci jirim yi rafetal ci yalwaankat yi masaakin wa qulu linnaasi te ngeen di wax nit ñi xusnan njëkk muy juróom benn wa aqimu salaata te ngeen di julli muy juróom-ñaar wa atu zakat te ngeen di joxe àddaka muy juróom-ñaar yii la yàlla santoon banu israil ci programme summa tawallaytum summa ginnaaw ga tawallaytum ngeen wane ginnaaw lan ko bañ a def li yàlla santaan daan ne yàlla nii la mel mbokk nag seen xel xalaatuñ ñu koy toppatoo ñoom yahudi wala nu ñu ko léegi sax ba nga xam ne fi ne sikaat yii léeg-léeg nga ñëw leen diw laay laajte ñu ne la numéro lan la léegi damaa fàtte numéro bi ñu continuer seen waxtaan cité yi booy laajte nit day dëkk fii nit dëkk fii ngay laajte këram si la xool ndax ku ne yaa ngi dëkk sa kër te duñ daje ci jàkk ji nu ñu xamante am na ñoo xam ne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen waaw te bu ñu amee morgo incha allah bu ñu faatoo ñu ñëw ni leen yàlla nañu am morgo bu ñu faatoo fi ne fii lañ leen jël wala yataama rafetal ci jirim yi jirim mooy ku bàyyam dee te mënulagul boppam kooku mooy jirim des ko war a yërëm kooku tam ñu rafetal ci waaye fi mu nekk li ñuy rafetal ci jirim bëriwul da ngay fekk benn jirim bàyyam dee na ndeysaan bàyyee ko ak weccet ak yaari kër wala kër yaayam ne ca nga ñëw takk yaayam commencé noose alali jirim bi def lu ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale bi naan foo jëme alal wala masaakin miskin yi miskin yi mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaankat yi ni leen réew mi sonale fi nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek doo nga daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen a yor li ñu rek te neen leen bu leen yalwaan si ne buñ la fekk nga yalwaan ngay sarax kuñ yalwaan sax gaa yi lay joxe ko mbuub la waaw te nag tubaarkàlla ñëpp ci dëkk gi kon fokk ñoom it ñu dem waaye ñoom ñëpp ñu dumoo yu illa qalil minkum lu lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu Israël wa is axadnaa fàttalikul ba nga xamee ne jàppoon nañu miisaaqakum seen kóllëre lan ji kóllëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deret ci mbokk muy benn wala tuxrijuuna bu leen génne anfusakum seen bopp min diyaarikum seen kër loolu dama leen yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqrartum ngeen d'accord ca wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu Israël signé nañ ne dootuñu rey dootuñu génne taxum yéen yi nii haulaa yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tuxrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaarihim ci seeni kër te rawoon naa leen rey yéen ngi rey te rawoon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génne gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sam réew moo tax lislaam du du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale foo xam ne kuñ jàpp ci àtte guñ la moom foofa ngay dem ane sànn waaye nag doo fa am ñaari ati ati wuñ la wala xaar déedéet mbaa weer mukk bis biñ la fa dugalee daal bala nga faa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñu wacca la nga def waaye duñ la fa denc di la jox ceeb ngay lekk di la jox journal ngay liir di la jox Marlboro ngay tox di la pintiral fa nga dëkk dafa la lal bu nooy non waaw loolu moom lislaam xam ko da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga dem fekk tooñoo waaye kaso yi dafa ñaaw léegi kaso yi dafa niixut léegi ceeb ba ñu rutat soxla xorom loolu loolu lislaam mu xamul loolu kon wa tuxrijuna fariqan minkum min diyaarihim ci seeni kër tazaaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi te teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mu ne wa in yatukum usaara bu seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaatuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jot leen wa huwa te loolu nag muharramun alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daa xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen a joxe xaalis soo jot leen yàlla mu ne bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógati léegi di ñaan intervention pour génne ko mu ne bu leen ma jaaxal gëm li baax al kitaab ci lenn ci téere bi